salaam mbokki téléspectateur 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale mbégte lay doon comme ni ñu koy defee rek euh, saa yu xew-xew amee ci réew mi ñëw ànd ko ki yéen tey nag xew-xew bi nekk xew-xew tiis xew-xew naqar boo xamante ne nii depuis samedi ba léegi Sénégal yëpp ñu àndandoo ko ñu si yaay jooju nga xam ne moom lañu fi ñàkk muy maman Kiné Diouf Diaga di yaay si Wally Seck ak ñoom bintoo ko Aline ñu koy ñaanal yal na yàlla yërëm ko oyofal suuf ci kawam mu nekk lu métti lool lool. Sénégal yëpp ñu ngi ànd ak ñoom tiis bi ànd ak ñoom naqat bi moo waral tax tey ñu ñëw fii ci kër gi nga xam mooy kër Papa Thione fa seenee ànd ak mbokk yeeg xarit yi. voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi nii toog kenn koo xam ne kenn la ci kër gi mën nañ ne tabarkalla macha allah moom mbokk la ci biir kër gi muy El Hadj Youssou Dieng El Hadj Papa nga xamante ne kenn du ko wax te doo tudd Waly Seck ñu fekk ko fii ñu fa seenee ànd ak moom laaj ko nan la yëgee xew-xew bi dal si askanu Sénégal yëpp bokk ko Youssou maa ngi lay. Adja Ndeye ñu ngi lay fay di la ziar di nuyu yëpp à travers euh, la 7TV. Euh, di ñaan yàlla fay képp koo xamante ni daj ko coono wala nga daj mettit wala nga daj naxar ci li nga xamante ni ñëpp ko bokk yëf yi moom yamatul ci famille bi yamatul ci waali yamatul ci njabootu Cheikh Seck wala njabootu Kiné Diouf ndax sénégalais yi wax fa dëgg yàlla depuis yëf yi am ak léegi ñëpp bokk nañoo ak waali naxar wi bokk ak moom tiis wi ba tax na mën nañu wax ne euh, c'est un deuil national mm-hmm. tu waaw xam nga dëj moom bu demee ba àgg ci naxari ñëpp rek mm-hmm. tubaarkàlla elle devient une deuil nationale donc ñu ngi remercier ñëpp la presse nit ñi ci daj ay coono boobu ba léegi administrativement mm-hmm. ndax. Euh, euh, génn àdduna ci ci dëkk bu dul sa dëkk dafa metti te loolu mooy li dal euh, Adja Kiné Diouf mais bi mu ko daleek léegi malheureusement week-end la tombeel mais li ci waroon yëpp suñuy kilifa taxaw nañ ci ñi nga xamante ni ñooy l'état du Sénégal taxaw na ci ba la yàlla suturaal nañu ba lépp yemba mu nekk perte bu métti euh, si nga xamante ne comme ni ñu koy faral di wax si jigéen jooju nga xam ne moo fi dem yow nan nga ko yëgee. waaw mais bi mu amee rek après dama déggante ak Waly mu xamal ma ne ma euh, yàlla def na li gën voilà donc kon euh, ni ko ñëpp yëgee rek ah ci ñi nga xamante ni jege nañu donc mu doon choc doon naxar doon lu bette. ndax wax fa dëgg yàlla euh, xajoon na fi waaye nag yàlla moom euh, mooy ki ñu moom moo ñu sàkk waaw te ba mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga war a xam ne kenn du fi des ñun ñëpp ci moom la ñu jóge dañuy dellu ala kulli aal ah, ñaan yàlla rek mu jéggal ko xaare ko ca àjjana yu gën a kawe ci barke rasulillahi sa relation bi nga amoon ak euh, Diaga. waaw Diaga sama mag la. sama mag la ci ci ci ci ci ci deret ah, sama mag la sama jarbaat la ah, di sama yaay ju baax joo xamante ni wax fa dëgg yàlla ku ko xam-xam ko ci bëgg njaboot ku ko xam-xam ko ci bëgg rasulillahi ku xam-xam ko ci bëgg diine donc euh, nit la woon ku baax nga xamante ni euh, nekkul woon rek euh, di topp àdduna wala di ko dund comme ni ko ñu bëri di dundee ah, bu bu bu génnee rek cause bu bu ko jaar la buñ ko gisee rek euh, njabootam a tax buñ ko déggee njabootam a tax donc euh, relation yu yu yu nice di ay dénkaane di ay seetlu di ay waxtaan yoo xamante ni lépp ci lu jëmee njabootam kanam la ak lu leen sàmm ah vraiment ak lu leen teg ci yoon donc. Euh, Euh, mën nañu rab am am njort bu rafet ci moom waaw. mu nekk perte bu metti gannaaw bi ñu ñàkkee Papa Thione euh, 14 euh, septembre 14 mars 2021 ñàkk moom mi cinq octobre deux mille 2022 2023 tey ñu ñàkk suñu yaay jaaga mu nekk lu métti loo xamante ne nii mu dal si njabootu Faramareen te yow nga bokk ci biir di assister waali fépp fu ñu ëlbatiku gis ko. <laughs> waaw lu métti la lu métti la waaye euh, ndey lu métti yàgg na ci àdduna ah lu métti yàgg na ci àdduna àdduna bi ku fi yàgg rek bis di nga jooy ku la ah, ku fi yàgg rek bis dina jot nga jooy ku la jege ndax euh, dañu xëy rek gis suñu bopp ci àdduna bi <laughs> tu vois donc noonu lay demee dañuy xëy rek dem fa ñu jóge woon ah, dem ca ka ñu jóge woon donc euh, gën a bees rek lañuy jooy ah waaye lu mu metti metti metti metti metti metti metti doo def lu dul muñ ko waaw waaw muñ ko rek yàlla nañu yàlla may xolu muñ googu ndax yàlla moo ko sañ moo ko def moo leen programmé woon ci seen ñëw ci àdduna moo programmé seen dem donc euh, yàlla mi ko def ku yaakaar ne da ko def pour après njaboot gi nekk ci problème kon xamoo yàlla ndax yàlla moom moo mën a wuutu Ah, ci jaamam lu ci ndeyam mënul baayam mënu ko ca kon yàlla na yàlla na loolu am yàlla na leen yàlla teg loxo ba euh, bu ñuy naxarlu seen demi waajur yeeg seen demu sër yi ci wéetaay rek lay doon ah, waaye du doon loo xamante ni day tax mu indi problème ci seen dund ndax ndey dina fi ne bàyyi dina fi ne te sa dara du lijjantiku waaw nit juddu na xamul ndey xamul bàyyi yàlla di ko sàmm di ko taxaw ci bépp fànn ba du jooy dara donc euh, loolu yàlla na leen dal ci barka rasulillah. ban anecdote nga ñuy jox bu la gënoon a marqué si Mama Diaga. waaw euh, mooy mooy mooy euh, bëgg gi mu bëgg njaboot tu vois léeg bu événement amee wala yëf yi sooxe wala problème am da ngay gis ne vraiment elle est elle est elle day day superviser tu vois. Youssou Dieng def leen li wax leen lii doxalee leen li bu leen def li bu leen def lii tu vois donc euh, anecdote yi bëri na mais yu ci ëpp yu ci ëpp vraiment ci ci ci lu jëme liggéeyuwaale ak njabootam kanam ah ak euh, borom këram gu baax ga ci loolu rek lay lay lay lay dox donc. Euh, Euh, anecdote yi bëri na bëri na bëri na. mu ni moom dafa nekkoon ku effacé wu mais bi mu demee ba Wally commencé carrière sax si lay commencé génn man je me rappelle mos naa invité Wally BFM info mu dugg participer ndeysaan si émission boobu. ma ngoog moom njabootam rek ko ñoroon njabootam moo ko ñor parce que nit sa njaboot ci lu mu nee da nga ko war a surveiller parce que da nga ko war a seetlu ndax xale yi mun nañu def ay erreur te bu xale yi defee erreur ñaare ci kilifa yi la ñuy dem laaj nu demee noonu lan moo tax. ndax suivi amu ci ndax nangam ndax nangam ndax nangam donc euh, njaboot daal moo ko tooñ. waaw njaboot ko tooñ. ñu koy jaale bu koo ko jaal yow ñoo bokk lépp ah wax fa dëgg yàlla li may wax la rek dëj bi ñëpp ko bokk ñëpp ko naxarlu ñëpp ko mettitlu du dëju benn nit du dëju ñaari nit dëj bi xajul ci xajul ci ci ci ci ci réew mi waxuma la ak ci kër donc euh, yàlla na yàlla fay leen ah, ñu ànd rek euh, ñaan yàlla euh, xare ko àjjana te te mu gëj fi waaw waaw mu gëj fi comme dee moom mënut a ñàkk waaw na fi gëj waaw ci barka rasulillahi voilà mbokk yi ñu ngi taxaw kenn koo xam ne moom itam doom la ci kër gi muy Pape Niass nga xamante ne ku ko xam-xam ko ci biir kër gi Pape ñu ngi lay nuyu di la masaw li ñu ko maa ngi lay fay sama jigéen nday Euh, di wax ni tey bis bi moom sama sañoon bu may gisante waat ak yow si beneen beneen anam lay doon waaye du si bis bi tey. ñu ñàkk loo xamante ne ni Sénégal yëpp ko bokk ñàkk nan nga yëgee xew-xew bi nga xam ne moo dal si askanu senegal gannaaw yow bi nga nekkee doom si kër gi nekk fa xarit nekk fa am di jàmm. naka rek mun naa ne tey jaaga yaay la woon mun naa ne koo xam ne tey defal na ma lu lu bëri si si si àdduna. tey dama koy témoin koo xam ne tey nitu sociale la ba récemment am naa fi benn problème ak benn waay boo xam ne waa ji moo ma tooñ si affaire yoon waa ji fu mu ma tooñee aussi yàlla def tey ñu tee leen ma maa jaaga di ma woo téléphone pour ma defar ko jano euh, si gotoom ma ne ko dama nekkat si benn béréb boo xam ne dafa am ñu ma tooñoon ñu ñu tee leen ba ñu ngi si loxo yoon dane ma pam ñas mu ma mu ne baal leen jéggal leen billaahi wallaahi li ma lay wax nii matagul sax six mois leen la ma wax ma ma jéggal leen effectivement euh, noonu laa leen jégalee euh, kuñ jàppoon tamit jabaram soulagé muy maire boo xam ne tey boo xoolee ñu nekk si dëj bi yëpp tey nit ñi mu doon defal lañ ñoo xam ne tey lu baax rek la ñuy wax si moom tey gis nañ fi dëju Papa Thione gis nañ fi dëju moom yi mais tey lu fi nekk si nit dafa dafa méngoo jëm jëmb ki nga xam ni moom moom moo moom moo génn àdduna quoi muy Mama Diaga suñu suñu yaay man personnellement elle toujours été une dama doon toog may conseiller dama doon toog may woo téléphone di ma yedd naan ma àdduna loo loo muñ rek mu jeex voilà quoi je. voilà mu nekkoon ku sori nag ci yow parce que yow ku xam kër gi rek xam ne yow doom nga ci kër gi ndax jege gi nga ko jege woon. waaw mun naa ne tey fii fii sama kër la dama ñëw tey Papa Thione yaatal ma bunt yi ma ñëw tey Waly yaatal ma bunt yi Mohamed Seck tey mun naa ne nekk sama frère donc. lu am ci kër gi muy xewu bànneex wala xew nakar ñoom dañuy xëcc seen téléphone woo ma donc li may wax rek tey weetaay la ñuy lañuy la ñuy jooy weetaay moom mooy tey ñanga doon toogal tey si diggu kuur gi boo ñëwee kër Papa Thion Papa Thion toog a côté Waly toog a côté euh, ba si maire jaaga toog ambiance boobu tey nga doon dund si kër gi dalay lay tey boo ñëwee si kër gi mun naa tey weetaay boobu nga xam ne tey ba Papa Thion demee demee rek mu bàyyi ko fi tey lii day gën a day gën a indi beneen weetaay li may ñaan daal moom mooy ki nga xam ne tey mooy Waly sama frère yàlla may ko wér-gu-yaram gudd fan may ko xolu muñ euh, jàppale ko ba lu mu mun a yoree tey njaboot gi tey nag moom moo fi sës moom mooy taaw moom mooy mag te ni ko moom i woon tamit ba muy démarrer ci musique sénégalaise tey xam naa ni dina ko gën a yokk nu muy taxawee ay frère parce que nag ku xoor jaar jaaru Waly ñun ñu nga xam tey xam ni liggéeykat la xam ne ku gëm yàlla la xam ne tey liggéey rek lay def liggéey rek lay def te doomu jaaga yi koo ci woo téléphone tey muy ñoom ñëpp lu mu lay wax ak yàlla lu mu dogal moom moo dañoo gëm yàlla dañoo gëm yàlla man miy dund ak ñoom xam naa ci dara. ban anecdote nga ñu mën a fàttali sa diggante ak maman Diaga. Euh, bon dama toog benn jour. soxla li nga xam ne tey nekk si bon je vais pas revenir à les détails nekk si loo xam ne tey dama ko woo téléphone ne ko Mohamed laa woo mu ne ma demal boole naa la ak sama yaay ma booleeg sama yaay tamit euh, ma dem fekk fa mama fekk waali tukki woon tey mu yëkkati loo xam ne tey enveloppe may na ma ko parce que loolu noon tey bu ma def da ma sauvé parce que c'était dans des moments yi nga xam ne tey dama soxla woon loolu j'ai jamais tendu la main à à Wally nii à Mohamed nii kii mais ñoom ñoo xool tey mu moment boobu tey j'étais dans le besoin tey ba ma demee tamit lañ ma fa bàyyee tey secret te lu mu lay wax danaan la na yam suñu biir que ça reste un secret Mama Diaga course bu mu la munta def wala lu ndaw lu mu la yónnee fa ngay taxaw sa Wave fekk la fa wala sa Orange Money donc tey lu mu am nii si dajam nit ku baax rek nga mën a am nit ku baax rek nga mën a am sincèrement xanaa di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana yërëm ko euh, ndax nit ku mel ni yaay bu mel nii dama naan euh, yombul ko quoi sincèrement sincèrement voilà ñu wéyale suñu émission xew-xew rek gannaaw tiis bi dal si kastanu Sénégal ñu ngi taxaw ak beneen artiste boo xam ne moom itam euh, ku ko xam rek xam ne si li muy yëngu mu ngi si biir aar bi dem ba ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di la jox seen wàcc waaye di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñaan euh, ki fi jóge tey na ko yàlla xare àjjana te oyofal suuf si kawam fii mu jóge nii gënal ko fee mu jëm ci barke Seydina Mohamed. ñu ñëw tey si kër gi fekk la fi gannaaw perte bi nga xamante ne moom la ñu am muy perte bu metti noo ko yëgee ah, dafa metti na ñëpp mettiwul ñëpp ah. ndax ku bakkan bu ñam dund dana ñam de ndax loolu la suñu borom tëral waaw du waali rek a ñàkk àdduna àdduna àdduna àddina moo ñàkk ndax yaa jaaga moom daa nekk suñu yaay ju baax joo xamante ne day di seex la woon njaaxanaay la doon tëddee ñëpp la boole uuf xamul kii la jur xamul kii la ñëpp di leen boole njaboote mu doon nag lu metti ñëpp nag mais saa saasu ne rek suñu borom day def li gën ñaan rek la ñu mën di ñaan suñu borom yàlla na ko yara xare àjjana firdawsi ci barke Seydina Mohamed di wax nag waali nag na muñ ndax bànneex ak nakar ñoo ànd waaw lépp la méttee te waali tey boo ko gisee sax moom mooy defal nit ñi waaw mooy defal di leen wan ne àdduna nii la tey day neex suba day naqari waaw te lool la rek dañuy wax nag ñu gën a góorgóorlu gën a jàppale waat waali te xam na ne ñun rek la fi am amu fi ñeneen lu dul ñun waaw koy masaw baax a baax. waa ñi leen masaw yéen tamit seen liggéey rafet na ndax yéen lu nit xew la ngeen ñëw def ci seen devoir ba mot sëkk di leen ñaanal seen télé bi fi mu euh, li ngeen si bëgg yàlla na ko suñu borom def di ñaan nag Sénégal yàlla na ci jàmm sax. voilà mbokk yi ñu ngi taxaw keneen koo xam ne doom la ci kër gi muy Nabou Diagne nga xam ne keneen ko présenté Nabou ñu ngi lay masaw li ñu bokk. ah merci beaucoup Ndeye. nga nekk doom ci kër gi voilà mu nekk perte bu métti noo yëgee xew-xew bi nga xam ne dafa dal ci askanu Sénégal yi waaw lu metti la vraiment lu metti moo ñu dal parce que même pas trois mois ku ne xam ne na la moom mi wàññeeku euh, après jaaga tegu si vraiment mu nekk lu metti tamit loo xam ne bett na ñëpp vraiment ñu koy sante yàlla tamit te xam ne sant rek moo ñu war ay julli dañu waaw yàlla sunu borom moo ñu moo ñu moom euh, bu soxlaa ñëpp dañuy ñaax waaw vraiment muy lu metti jaaga di yaay si yow nan nga yëgee xew-xew bi. waaw xew-xew bi nu ma ko yëgee de dama dugg statut après ma gis sama benn frère euh, mu def alhamdulilah alhamdulilah ma gisaat keneen dugal même chose ma xam ne jàmm xewul su may toogee tuuti rek même pas deux minutes si lañ ma woo téléphone annoncé ma ko mu nekk mu def ma choc vraiment nekk lu ma bett waaw lu ma bett loo xam xaarew ma ko woon benn yoon waaw jàgg moom sama mag la vraiment sama mag la sama xarit la waaw sama mag la sama xarit la waaw ah, man nag moom ñu bokk benn ndey vraiment kon moom su su su wàññeekoo rek sama sama ku sori ci man moo wàññeeku. waaw ah, ku sori ku man moo wàññeeku koo xam ne nii daal koo xam ne tamit ku ma bëggoon la vraiment nekkoon sama xarit lool lool lool lool yàlla xam ne loolu waaw. ñu xamoon sa relation ak moom euh, ba sa relation ak yi nga xamante ne fu mu ko gis la si wetam moo tax maa ngi laa doom nga ci kër gi gannaaw ba nga nekkee yaay ci yi tamit euh, mu nekk perte bu métti ni mu tegloo ñetti at. suñu borom def li nga xamante ne moo gën kër gi wéet sëngéem daal di am. waaw sant yàlla rek sant yàlla nag xam nga yàlla moo ñuy moo ñuy moo ñu jox waaw buy jox doo ko yëg te buy jël tamit doo ko yëg kon du koy sant yàlla suñu borom di jullit ci Seydina Mohamed te xam ne nii la nii la ko nii la ko suñu borom bëggee waaw ñu dool di sant yàlla bu baax a baax. man souvenir nga ñu gën a mën a wax euh, bu la gën a marqué sa mag sama mag ji xam nga saa yu ma ko gisee nag ay souvenir yu wéy laay am moom parce que tout le su ma gisee rek ne ma man bëggoo ma waali nga bëgg man ko man yow laa bëgg man yow rek laa bëgg yaay sama mag waaw mu ne ma li nga bokk ak man de mënoo ko bokk ak ma man ko moo tax gis nga yow sama yaay sama xarit vraiment moom su ma gisee vraiment sama sama xarit la daal jaaga vraiment nit ku ma bëgg la xam nga ku bëgg mbokk ku bëgg mbokk bëgg bëgg famille waaw. jërëjëf yal na yàlla fay si taxawaay Beto merci beaucoup. voilà mbokki téléspectateurs yi ba tey ñu wéyale rek témoignage yi ñuy def si suñu yaay jaaga ñu toog a teg ñu nekkate keneen koo xam ne doom la si kër gi muy Nabou bu Seneweb ñu xam relation bi mu amoon ak suñu yaay Kiné Diouf Nabou ñu ngi lay masawu. merci beaucoup Ndeye jëfal maa baax a baax xam nañu li nga xam ne moom ngay yëg Sénégal yëpp di ko yëgandoo ak ñun mu nekk lu metti lool. relation bi nga amoon ak suñu diggante yaay Kiné relation bu bien la amoon ak moom nit la woon bu baax bu bëgg nit bu bëgg njaboot bu fonk aussi njaboot parce que ñun ñii ñëpp ku ñu xam-xam ne dañoo sësuwaal yi te képp ku sësuwaal yi mu maa jàgg bëgg na la man bu mu ñëwee rek bu ni may nuyoo rek nga xam ne elle est soo waxee mu ne Nabou moom dafa bëgg waali moom dafa bëgg waali donc donc mu nekkoon nit ku entière daal yal na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana firdawsi mu mel ni bëgg gi mu bëggoon njaboot ba tax na ku bëggoon njabootam mu bëgg la. waaw daf bëggoon njaboot boo ku bëggoon njabootam doolee daal di bëgg man waali moo ma ko présenté woon depuis loolu daf ma jàpp fu ma fekk nuyu ma jox ma sama war ma donc il était tellement gentil pieux tout le temps mu ngi ci conseil man chaque fois ñu ñuy mujjee waxtaan mu may conseillé ama gis naa da nga bëgg Waly waaye Waly tam dalaa bëgg góor góorlu leen métier bi ngeen nekk di ngeen dégg lu ne di ngeen gis lu ne mais da ngeen di góorgóorlu góorgóorlu tamit seen diine ngeen jàpp seen waajur donc lii daal daal na ko wax di leen jàpp seen waajur ngeen di góorgóorlu seen diine di góorgóorlu ci lépp donc nit la koo xam ne daal nitu diine la woon en fait mais elle était ñun lu ñuy nekk ci média média yëpp musul nangu ñu jël ko interview image am sax parfois boo koy sàcc day muuru kol wala mu ne napp bu ma jël xam nga bëggul donc yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. ñu bu baax mm-hmm. merci beaucoup. voilà mbokki téléspectateurs yi ba tey ñu ngi fii euh, fi nga xamante ne aussi faax si xew-xew bi nga xam moom moo fi am muy suñu yaay jaaga boobu ñu doon denc tey mu nekk nag journée boo xamante ne bu métti lool lool lool la ñu ànd ak ñi xam ñooy waa Balago Boys ñoom itam ñu fekk leen si dëj bi xanaa ñu leen rek nan la ñuy yëgee li nga xamante ne moo dal si askanu Sénégal jàmbaar maa ngi leen waaw ñu ngi lay fay soxna si di fay bu baax a baax a baax di fay waa Sénégal gi yëpp waaw di wax nag tey moom doon am naqar bi ñu metti waaw ndax depuis samedi ba léegi tooguñu taxawuñu ndax jaaga dafa doon ko xamante ni sunu yaay la sunu yaay la te kër Papa Thione nag bu ñu fa duggee ñun waa Balago moo ko waral. Mhm. premier jour bu ñu fay dugg moom moo si buntu bi ni koo leen di seet ñu ni ko Papa Thione mu ni waa ok kaay ñu ak Papa Thione mu defal ñu album dem ba tey ñuy ànd ak Wally am na ñu metti trop xanaa di ko ñaanal di ko jaale sunu papa Wally di ko jaale tamit ay ñoom Ahmed Seck Aline Seck Babacar Seck Aïcha ñëpp daal waaw di jaale ñëpp daal da di leen wax daal am na lu met trop ñu koy ñaanal nag fa nekk yaa na ko gënal bu baax fa mu jógee waaw yàlla baax na moom yaay la ñu koy ñaanal bu baax te xam ne ni ma nga àjjana ma nga àjjana firdawsi nan ngeen doon dundee ak moom waaw si lu rëy rek yéen yéen da ngeen a baax gars yi ñun ñu doon ay taalibe ñun tey ji ñun ñu ngay gis ñuy përëx përëx yëpp dañuy dem nii rek mais demuñu suñu xol demul mënuñoo jooy nag mënuñoo def dara mais sama yaay xam na ñun xam nañ moo tax ñun duñ def dara jël lépp dañ koy jël lépp dénk ko yàlla suñu borom xam ne yàlla mu rek moo sañ lii moom rek dëgg la dëgg la ah affaire yi métti na trop mais sant yàlla bu baax ndax yaay Kiné Diaga nag nekk na yaay ñëpp la nag mën naa ñu wax ne yaay ñëpp la te nit ko baax la fa dëgg yàlla mosul bëgg ñu sonn macha allah di jàppale néew gi doole mhm. mais nag affaire yi mënuñoo wax lépp mais yàlla baax na ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana si bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lan moo la gën marqué mbaaxam rek. mbaaxam ak ak ak ak ak ak juwiteem ak mbaaxam lool sax bëgg ñëpp ñëpp bëgg ko di ñaan suñu borom yërëm ko jéggal ko. xaaree ko àjjanay firdawsi mu ngi noonu gis ngeen ko mbokk téléspectateurs yi voilà ñu ngi leen di jaajëfal waa Balago Boys ñoom itam nga xamante ne ay doom lañu foofu ci kër gi comme ni ñu koy waxee rek merki ne ñu ngi koy ñaanal yàlla na kawam waaye mu fekk ji borom këram ba xaritam ba muy papa coon nga xamante ne papa yi ñëpp la woon kon ñu ngi jaale askanu Sénégal yëpp ma koy jaal sama buntu ci kër gi rubba sëy ñoom ñëpp maa ngi leen di jaale mama jaaga rendez-vous allah beneen xew-xew si biir réew mi di ñaanal Sénégal yëpp di leen jaale